jamono ñi yi ñuy wax ak yeen Fa am lu metti lu dal suñu kaw muy dissolution du parti musuñu gis acharnement bo xamné ab parti politique ñi nga xamné ñoo jité réew mi ñi ngi koy tek ci kaw musuñu gis aussi leader politique bu jànkonteeg li Ousmane Sonko mi nga xamné moy suñu leader nek suñu candidat jànkonte suñu ay militants ak ay sympathisants ñu jàpp leen ci kasso parti bi ci bopam ñu dissoudre ko téye leader bi emprisonné ci lo xam ne ko fex manam réew mi recul démocratique mo fi am donc régime biñu nek nekk dund au Sénégal régime dictateur ñun jangat biñ ci def moy suñu continuer ni manam Ousmane Sonko mën na baña dem élection ba paré projet bi suux surtout ñi nga xam ay traître la leen mëna qualifier ñu bok ci coalition yewi Askan Wi ñi nga xam dama séqoon ak ñom parti bi avant dissolution bi ñu di ci liggéey ñu nekk ay militants ñi nekk ay sympathisants ñenn ñi nekk ay wólëre confiance bi nga xam ne am nañ ko ci man moo man Ibrahima Mbaye damay déclarer sama candidature pour élection présidentielle yi di ñëw 2024 may woo patriote yi nekk ci commune yëpp ak département yi fexe nu ñu boolee suñu doole pour que projet bi bañ a sut ñu delloo ci démocratie sunu ay ax ak ay yelleef ñu jëlaat ko ba mu mat sëkk ñu rendre justice à Ousmane Sonko ak képp koo xam ne maanaam régime Macky Sall bi teg na la ay tooñ ak ay ngaañ euh, ñu libéré suñu peuple